bu fekkee yàlla dafa def ay nit euh, wóolu la denkale seen baat nga nekk seenam njiit yaa xam élu nga wala maire nga euh, sa yitte moo war a nekk lépp lu euh, askan wa soxla nga taxaw si ba lu yàlla dogal si loolu nag lañu jéeme ñu ne nduxura fii pour ku xam nduxura xam ne dëkku sàmm la waaw bu fekkee dañu jël dëkk yi nekk si biir commune mu di fukk yi maanaam fii la ñuy gis li gën a bari si ay ay ak jur Euh, ñoom ak ñaay xay donc bu ñu régler problème mu ndox euh, non seulement nit ñi dinañ am ndox mu ñu naan dinañ am ndox mu ñu togg ak mu ñu sangoo mais jur gi euh, dana am ndox mu mu naane donc loolu moo tax ñu ne dinañ jéem lépp ba ndox mi ñu def si lu ñu man si lañ tàmbalee am na ñaari at si gannaaw ñu def benn forage boo xamante ni dañ ko équipé mu am pompe pompe pompe boo xamante ni mais pompe nag machine la mën na jekki paan jekki taxaw mais si loolu la ñuy sukkandikoo ba léegi si pompe boobu euh, ak forage bi moo tax mais nag li ñu bëgg mooy fexe ba ndox mi non seulement day dugg si biir mais koo xam ne si dëkk bi nga dëkk boo bëggee xëcc ndox mu dem sa kër nga mën ko xëcc te loolu mënuñ ko lu moy jaar si réseau SONES moo tax euh, ñu wate budget euh, fukki million ak juróom-ñaar fay entreprise mu war a tàmbali tuyau yaa ngi taxaw bu soobee dinañ démarrer tey feeg suba euh, euh, lu toll si un kilomètre boo xamante ne bii day démarrer si goudron bi dem ba fi dëkk bi yem. ñoo ngi gërëm monsieur le maire le maire de la commune de de Yène parce que li mu li mu def tey jii du ñu yàgg jooytu 1993 boobu Alassane Dialy Ndiaye moo nekkoon ministre de l' équipement mos nañu bind lettre def benn manifestation population bi yëpp signé lettre boobu ñu yónnee ko ko yónnee ko président de la république ba fa nekkoon muy président Abdou Diouf. pour que ñu am ndox 1993 ak léegi ñaar fukki at la ak juróom-ñaar te man ak suma xarit bu ñu naan Mansour Dia ñoo bindoon leetre boobu. kon nag bu ñu toogee ba mu ba tey monsieur le maire bu commune de Diamniadio de commune de Yène ah indi ndox ci biir dëkk bi ak 17 million yoo xam ne mu ngi ko jëlee ci biir euh, budget mm. de ñun mënuñu lu dul jërëjëf sant ko moom ak conseil municipal bi.